mbir Mbirkilaan FM ci Saalum Vaes FM ci Gambie di jëmoo ak Babacar Sarr ñoo fa nekk ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu seen auditeur di nuyu doomu ndeyam Abdou Darame jëm maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare jëm. Lamine maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàcc wàccuwaay di yu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci luttetv.com fépp fu waay mën a nekk ci àdduna. Mm-hmm. di nuyu ñu ñuy suivre ci Wise FM ba sa Gàmbi Mbirkilaan FM ba sa Saalum tey nag Gàmbi Lamine boo demee ñu ngay xaar xew-xew bu mag seen diggante Cameroun ñu ngi leen ñaanal yàlla may leen ndam. seen diggante Cameroun comme ni ko waa ji waxee woon rek keroog benn jour Gàmbi nee na final bi mu bëgg mooy diggante Sénégal ak Gàmbi mu nekk final Sénégal bi journal sunu lamb lañ koy commencé mu war ñu ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 photo yi nag yaakaar naa ne mooy photo yi ñu ko jëloon bi muy waaj a bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo 2019 waaye nag dernier combat bi ci la ki nga xamante ne mooy Mamadou Koné ñëwaat Mamadou Koné depuis New York moo xëy bind article bi nee na Balla Gaye numéro 2 daal ak dernier combat bi ak nga xamante ne noonu la ko doome doxale ak defet bi nga xamante ne defet ba moom ni mu ko jàppee mooy defet la boo xamante ne maanaam dañ ko humilier moo tax mu jàpp ne Balla Gaye dal instant bi gaynde la bu nga xamante ne ragalatuñ ko waaw Mamadou Koné moo xëy bind lii wax ko ci journal suñu làmb na Balla Gaye 2 combat bi mu jógee lu mu wane bu doon gaynde moom ndax gaynde xale yi dañ koo ragal mag ñi ragal ko mm-hmm. gaynde ku ko gis daw mm-hmm. waaye Balla Gaye 2 bokkatul ci gaynde yi ñi di ragal maanaam mm-hmm. gaynde yoo xam ne la xale yeeg ñëpp ñoom yi nekk parkaana yam ku dem di nga leen noonu la ko waxee ci journal bi loolu waxi Mamadou Koné la ci journal sunu lamb indi na ci ay détails yu bare bare bare bare bare ku bëgg a gis yenn détails rek boo jëndee journal sunu lamb di nga ko fa fekk waaye ak lu mën a xew daal Mamadou Koné moo wax bu yooyu la kàddu waaye nag yeneen kàddu yu nga xamante ni Iba moom moo ko wax war dox ci diggante Tapha Tine ak ñii digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy B52 yaakaar naa ne yooyu yëpp ay revanche la. waaw Mamadou Koné bi mu waxee dafa jox Iba Kane micro bi mu mottali ay waxam Iba Kane moom ci keneen lay wax muy war saa kànde doomu Bawol ci Tapha Tine. Mm-hmm. waaw borom taq cirib Iba nag Taphatine gannaaw ba mu jógee ci combat am Boy Niang ba léegi nit ñi di jaaxle kan la Taphatine war a kan la Taphatine war a laaleeg mooy ñëw journal bi di ko utal adversaire mm-hmm. adversaire yi mu ko cité nag cité na ci ñaar ñoo xam ne adduna bi yëpp xam nañ ne combat la mm-hmm. muy diggante moom ak Lac de Guiers bokk na ci revanche yi gën a yàgg bu amaatoon tey ndax bëyeen ñoo bëri depuis 2007 mm-hmm. mu ñëwaat ci diggante moom ak Hmm. àdduna ñu ngi ko doon xaaraat hmm. kon Iba Kane nga xam ne moom la indil Tapha Tine dafa dombek bëgg-bëggu amateur rek bëgg-bëgg askan wi hmm. combat yooyu bu ci Tapha am combat bu jaadu la Lamine combat bu ci Tapha Tine combat bu jaadu la moo tax mu ne deux revanches sur la table du Tapha moom ak Lac de Guiers yaakaar naa ne promoteurs yi ñoo ngi ci waaye moom ak Bombardier tamit lu jaadu la waaye lu ko jiitu nag Bombardier moom am na combat digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Eumeu Sène ba seen jàkkaarloo bu njëkk tey lañ koy def fële ca 2 waaw gannaaw bi ko Iba Kane di raasal ay adversaire ba Siteu ci ñaar kenn kaa ngi këram toog waaye kenn ki moom am na lu ko doy hmm. muy Bombardier hmm. borom jeexaat foofu rek doom bii nag jeexaat ga mu waxoon ci côté dafa tourné ci côté muy diggante moom ak Eumeu Sène ndax dañ fay jaaroon hmm. waaye nag du combat boo xam ne combat buy sori la combat bi mois de mars ñëw na ba pare le 27 mars la loolu jege na tey jii mooy seen première jàkkaarloo bu njëkk yaakaar a ñor kon tafaatin di ko ibbakan kiwel ba tey mën naa toog xaar en tout cas daal Lac de Guiers ak Bombardier ñaar ñi ñu ko tegal bu ma doon moom day gëmmu jël ndax comme ci am rek am na ki mu war a am loolu mu ngi ci journal sunu lamb waaye yow tamit yaa ngi ci journal sunu lamb di waajal le 20 mars sa quatrième journée ci saison bi nga xamante ne moom lañ nekk muy saison 2021 2022. waaw journal bi xëy bind ko di wax si Jam Production ne Jam Production mu ngi jëm ci quatrième journée am ñu ngi ñaan nag mu dem ba nekk dixième journée ci année bi. Mm-hmm. ndax bu ñu sañoon chaque weer ñu organiser xaj na problème mu date yi am ak ñi nga xam ne promoteurs yi sar nañ date yi moo ëpp promoteurs yi journée yi ëpp date yi moo tax lamb ju doxee nii. Mm-hmm. waaye ñu ngi woo Sénégal yëpp di waaj ne le 20 mars ma mars ñu xam ne ñëpp xam nañ ne ñooy borom. Mm-hmm. waaw defoon nañ ko 2019 war a demaat mois de mars pour sargal jigéen ñi sargal jigéen nag suñ ko waxee képp kuy jigéen doon jàmbaar ci dëkk bi waajal la 20 mars rawatina ñu ciy sargal suñu jigéen jiital ko ci muy Bijou Ngoné drapeau Gora Sock ak Fils de Balla drapeau Gora Sock ak Fils de Balla ba léegi rek ak ki nga xamante ni moom moo di Jax moom tamit dafa mel ni indiwaat na derby Fass Pikine war a dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Cobra mu war a am le 13 février waaw Père Jax moom gannaaw bu mu yëngalee ligue simple bi teg ci 5 millions ñu ne na waaye mu jëm ñu moom 10 bi yoon nag dafa teg loxoom feneen ci bëree dóor la ko teg diggante Serigne Ndiaye numéro 2 la indi ak Cobra. Hmm. combat de taille combat poids lourd. waaw nekk combat boo xam ne am nañ yaakaar ne làmb ji neex la waaye nag le treize lay am le treize boobu nag. Hmm. Lamine ñoo fa taxaw seetlu ñaari combat yi am ci réew mi dafa neex. ndax gannaaw Ibamar arène nationale tamit am na la fay xew. Hmm. Ada Fass ah Tapha Mbeur ak waaja Ada Fass combat ba neexoon moo ba léegi génnagul sama xel waaye bi yoon borom rocc sa poudre la jox ko poudre bi ñu yëy. muy magu Laurent. am na ñu ñu ni kàddu yu muy wax. rafetul mais est-ce que nekkul ni day day foo waaw rocc put mënul am ci làmb. non non non rocc am ci làmb yooyu ay waxeen la dafa am làmb dafa toll foo xam ne mbëri ñoo war a dooleel làmb. Mm-hmm. ndax sponsor amatul ci làmb ji lamin mm-hmm. mbëri ñooy seen sponsor bopp ñooy communiquer neexal seen événement nit ñi dem seetaan am na si ñoo xam ne gannaaw bu ko ñenn di ñaawlu ñun ñu ñeneen ñaa ngi koy rafetlu ndax loolu leen indi ci làmb ji. Mm-hmm. kon du loo xam ne du danser kenn ñu ngi wax dépassewul moromam kenn saagawul moromam loolu luy la na rocc put gi jox ko <laughs> loolu am na solo Jax tamit ma gannaaw ba mu joxee amateurs yi Derby Fass Pikine suba dina jox tamit amateurs yi li nga xamante ne moom lañ bëgg un million fële ci adressé ko. waaw moom bu fekkee ne lee añ la dee suba tegal na gaa yi ndekki li sama Jax waaw sama père sama maam sax ngay wax ndax yàgg daa yàgg sama maam Jax waaw suba mu ngi jëm fële ca Iba Mar teg fa un million. yoo xam ne ñëpp say maam lañ ko si sa maam la. waaw wala sa mag. sama maam la ko sama maam la. est-ce kot su caatam moo mag xam nga kot su day day watu nel rek gisoo karaw yi. Ali ah, tamit bëgg na nel de. waaw non loo koo koo ci gis muy nelu lu bari rek am na lu xew. xam nga am na ñoo xam ne yàlla da leen dimbale ay sportif lañ mun ñu nekk mag te duñ màgget ndax mm-hmm. entraîné yi ñuy def. Mm-hmm. waaw loolu mooy téye seen forme léegi nag karawul moom day weeraate. moo tax père Ali. ak kot su jabang duñ ko caaxaane moom chaque jour dañuy watu si ñoom laa ko gis. ak waaw Jax day watu ba pare teg ci ab teg ci kap kap ci kaw gisoo. kon moom dëgg daa bëgg lu wóor ñu des ba nekk ci journal sunu ak jalgati làmb Ama Baldé la ñu wan mu yëg ci saretam ko dàq nag naan ko aywa ali acca ñu dem parcelle jëli couronne bi ndax waa Pikine ñoo ma yónni yàkkamte waaw jalgati làmb tey lu ñu la indi gannaaw bi ko amaa di wax ci ay kàddoom jalgati bi day xëy di ko dëggal amaa nag jëlul oto jëlul avion jëlul tamit scooter moom tey ab fas la war saret yow caw sax xiir ga muy woowee boppam daal moo tax gaa yi ko jox xiir gi mu ngi téye. Mm. façon mi dàq nag jëmut ak moom feneen fulut parcelle. Mm. fas wi lay caw te naan ko waa Pikine ñoo ma yónni yàkkamti ma roi des arènes bi nga xam ne fii la ko waa parcelle jël see. Mm. dem ma dem jëli jiwaat ko indil ko Pikine. moom nag gannaaw bi ko waa Pikine yónnee yàkkamte ko fas yi nag moom kenn rek lañ gis ne moo ci nekk. kenn toppul ci ginnaawam yaakaar naa lii journal bi kar ci bu face à face yi demee noonu làmb ji dina neex dina yegg ci jàmm. ñu leen ñëw ci journal bi nga xamante ne moom mooy journalu record wan ñu Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 di ñu wax face à face bi samedi la waaye dafa mel ne tamit dinañ ko régulier jeudi incha allahu rabbi bu ko defee Bombardier ak ki nga xamante ne moom moo eh, kii dinañ renouveler waat seen licence parce que licence yi jeex na. waaw Lamine li nga wax ni day dëgg tukkudul tukki doo xam fu dëkk neexee bi ñu nekkee sunu làmb waaye xaabaabal nag bi ñoon dañoo tel sunu làmb pare fa lem ko tegee côté indi beneen journal buñ naan record. Assane Waalo waaw si Assane Waalo Gueye ma xam ne moom lambloog la Assane Waalo nag moom daf ñu indil datu face à face bi mm. indil ñu date bi nga xam ne moom la ñuy régulariser combat bi muy mm. diggante Eumeu Sène ak Bombardier mm. régulariser nag boo ko déggee mooy dem nañ CNG teg ñaari licence yi licence u Eumeu Sène licence u Bombardier menaceurs yi ñëw taxaw ñaata lañ la fay nga wax ñu xusu kenn ku nekk si signé ñu jox la sa convocation heure bi ngay dugg si danga koy xam boo amee avant yëpp da nga koy xam kon suba bu ñu ko régulariser ba pare ñaari licence dañ leen jodi dañuy jël ñaari licence def ci enveloppe tëj teg bureau CNC muy Eumeu Sène ak Bombardier koo si joxoon bu ñu ci tegoon 300 millions sax ci mbapat bu ñu demul abbu ji licence bi duñ ko mën a bëree kon daal combat bi yëpp ay wax la woon taxaw na taxawul signature yëpp waaye régulariser bu ñu ko xasee régulariser mooy li wóor mbëri fay nañ leen nangam jot nañ avance nangam reliquat yi a ci des. na solo Jamaïcain Reug Reug ak waa TFM Mao ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal danañ ko def en direct sur la TFM. waaw le 20 février bu la neexee nga na on the 20 février pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ndax guy geeg rek rek keroog seen anglais saf na fa sap. Mm-hmm. combat bi nag euh, Mao se gannaaw bi nga xamee ne at yii yëpp Lamine. Mm-hmm. ñu ngi pay per view ñu ngi pay per view benn làmb bu mag direct wuñ ko. Mm-hmm. moom nag ña mu tuddee lamb ji muy waa 5FM entertainment. ak groupe ba yëpp. record Lobsu ICFM. RFM ñëpp ñoo ànd jënd làmb ji. may ko sénégalais pour ñu seetaan làmb ji. man nag foofu li ma ciy wax rek na état bi xoolaat seen taxawaay. ndax Lamine làmb 2005 ba 2012 chaque jour làmb ju am dañ koy direct. waaye diggante 2012 ak léegi nag. bi état bu bees ñëwaatee ba léegi muy jamono nguur gi ne fi. ba léegi làmb doxul avancé wul. sponsor amul. mbëri amatuñu public bi doon leen topp toppatuñ leen yaa ngi dégg. kenn xamul daal lan la mbir mi demee jël nañ làmb daal ah. maanaam bu fekk bu fekkoon dañ fekk làmb muy tàkk ah huile lañ si sotteek ndox. Mm-hmm. làmb ji ne këmas. loolu dinañ ci yaatal loolu si nekk yëpp dañ ciy góor góor rek loolu nag war nañ ci yaatal lu bari ñu xam nañ ci lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a leeral. dinañ ci yaatal bu baax a baax te bu boobaa direct lañ ko def ci Lutte TV waaye daf mel ni journal suñu làmb ñëw na ci le 5 février. waaw journaliste suñu làmb bu fekkee am na ñuy sewal sa bés wala di ko caaxaane. journaliste suñu làmb yi ñoom caaxaane wuñ ko. ndax nag Lamine yenu jàpp ca daa gën a wóor te da koo liggéey ci réew mi waaw waxuma la dara waaye ku ne taxawal nga ko ci bisam muy promoteur muy mbër fu waay jógee di am looy wax sa soxla yow la koy wax. kon nag boo amee bis bi yaa ngi dégg ñëpp ci war a jàpp. ñëpp a ko war a teewee. maanaam face à face waru ci dara waru cee am dara. mbër yi sax seen avenant yi waruñu ko signé promoteur waru soon si jàpp face à ndax lamb dañ la war a delloo njukkal muy la cinq fële sa Thiès waaw nga dem ca benn dëkk ñaari gaar ñu ngi lay ñaanal nag yàlla ci yàlla def jàmm ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamin léegi ñoom moo daan te ñooy samay waa Thiès waa mbëru Thiès yi nag nag mbëru Thiès nag nangeen xam ne nii am ngeen goro bu mat goro ah, te seen doom jox ngeen ko ki ngeen ko war a jox ndax yaru na respecté na doomu aadama soxlaalul kenn dara ku diiñ la ku am fulla la te xam nañ ko ci moom ñun kenn mënuñu gën a wax ci moom ndax ñu ak moom ñooy ànd guddeeg bëccëg moo tax bis boobu moom suñ si amoon làmb sax ñun dañ koy maye ku ñu fa dëgg nañu mas waaw mooy goro ba mag bi di Jaxate Siri Jaxate mooy suñ goro jox nga sa doom nag ñu ngi ko war a jox dénk nga sa doom ñu mën a yor jabar waaw xale yi gëm seen bopp nangoo liggéey insha allahu bi jërul ngeen koy woyal bul dóor buur saaga yi jigéen ñi di woy noonu bul dóor bul saaga américain lañ la indil ñun dóorewuñu saagawuñu ab américain ngeen ñu indi indil waaye fekk ngeen fi ab canadien. jërëjëf jërëjëf Lamine. kontaan naa ci yow di kontaan ci ñuy suivre Lutte TV point com yëpp. di nuyu moo Ndiaye directeur nee ma li ngay sol maa la koy jox jasneer bu rafet gis nga moom la ma jox dëgg yàlla ñu ngi koy jaar bu baax di ko ñaanal jàmm man gis naa jasneer bi ñoo àndoon bi ñu koy jëli moo Ndiaye yàlla na la yàlla defal jàmm yaag sa soxna gis nañ taxawaay bi ngay am ci mbëri ak njabootu làmb képp ku ñëw États-Unis yaa ngi koy taxaw di taxaw ñi nga xam ne ñu ngi fii yàlla na la yàlla defal jàmm yokk sa teranga Abdou Darame ñu ngi lay nuyu yow tamit bu baax di di nuyu mission su amee bés nit amul lu dul bésam Abdou Dramé yal na la yàlla fay sàmm la sàmm sa njaboot xéwal yi yàlla gën ko yokk képp koo xam ne yaa ngi États-Unis di dund làmb ñu ngi lay ñaanal jàmm baax a baax a baax ndax Lamine kat sunu nit la sunu xarit la ku jàpp ci bésam sunu bés nga jàpp ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen xam ne nit xewam la am bésam la mbëri na ñëpp ñëw mbër mu musu ñëwul boo jógee États-Unis bu ñu woowati téléphone yaa ngi dégg booy defar say soo ñu du ñu ñëw kuy defati open press boo ñu woy du ñëw ndax nag waa njabootu làmb yëpp war a jugee dakaar mhm. dem taxaw jàkkaarloog ay gorom mhm. ñu xam ne kii nii kat ku liggéey ci réew mi dara la te jàmbaar la ci réew mi jërëjëf Lamine rendez-vous lundi incha allahu rabbi